Eh, jërëjëfati mbokk yi ànd ak ñun di ñu seetaan ak di ñu dégg ñu daal di amaat mbégte gu rëy ginnaaw ba ñu delloo sant suñu borom julli ci sangu sangu daal di gërëmati waajur yi ñaanal kilifa diine aada daal di ñaanal mbokk yëpp yi nga xam ne sax bu ñu tàmbalee ñu bàyyi lépp lu ñu jàppoon daal di wéy ànd ak ñun di ñu seetaan boole ci di ñu déglu ci seen jataayu waxtaan wi nga xam ne dañuy waxtaane lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu bio ñu fas yéene ko yaatal ci nekk saa su ne ko nekk mën a xam mën a xam ne mën a ràññee boo ko soxla la nga bëgg nga ko mbokk yi nag tey dañu fas yéene waxtaanee eh, lu jëm ci wàllu feebaru de yi nga xam ne day dal pour tànk yi ndax ñoom feebaru der bi su leen daree su ñu leen dimbaliwul trop mën naa yàq seen der bu leen dimbaliwul trop mën naa yàq seen ëllëg yàq seen ëllëg mooy feebaru der wi am na nu muy mel dootul demati ekool te bu demul école wala daara ji ëllëg mën na ko indil ay gàllankoor ci doxalinu àdduna ñooñu nag saa su ne soo laajee seeni waajur lay ko gi di yëg moom la ñuy yëg ba moo tax saa bu ñu déggee fu ne fu baax fu ne dañuy sol seen dàll dem ngir wut fàkkute bu jëm ci loolu teewul soo leen ñu ne dem nañu fu ne ci dermato teewul duñu découragé waaye li leen dal dermato bi xam na ko moo tax mu wax ko ne ko lii la te loolee moo ko ca wax du dañ waaye mbir mi yenn saay nag fa muy amee jafe-jafe la ci ëpp mooy garab gi garab gi yenn saay mooy jafe-jafe ndax ki lay jox garab gi moom defarul garab gi garab gi la ci ëpp beneen réew la jóge ñu indi ko ci moom ne ko kat am nañu yaakaar ni lii dina def lii dina def lii dina def lii ca loolee la sukkandiku nag ku ñëw ku ne mu jox la nga ñëw tane woo mu jox la beneen nga ñëw tane woo mu joxaat la beneen nga ñëw tane woo mu joxaat la beneen nga ñëw tane mu joxaat la beneen ba keroog muy gis bi méngoog yow su boobaa nag ki am yëg-yëg du mën a xaar loolu su boobaa nag mooy tax mu dellu si ñëw ci ñun sur la médecine traditionnelle su boobaa nag moom moo lay wax lii yëpp ne dem naa fi dem naa fi dem naa fi ci médecine ren lii ak lii nga xool ko ne ko lii lii la mu ne sii loolu la ñu wax nga wut say pexe defaree ko ko def ci saabu def ci crème bi muy diwoo ngir tolluwaayu feebar nga am njott gu rafet ne su ko jëlee day wér ndax la ca biir yow yaa ko defar nga daal ko jox mu ñibbi këram ñu daal tàmbali mu gis njariñ wu yaatu goo xam ne daf koy yéem mu jël téléphone cant la gërëm la ne la dem na ay ati at fu ne waaye tey laay soog a gis njariñ wi nga xamal ko ko ne ko ñoo lay jox sax la ñu yor ña lay jox sax la dal du ñàkk ne xamuñu ko xam nañ ko waaye la lay faj garab ga la defarul te tubaab su dee defar defaru ko pour yow africain yi moom daf koy defar pour moom te su ko dee defar dafa am ci lu muy basé wu ci nit ki ci powu nit ki ci environnement bi muy dund ak ci lekkin bi ak ci doxalin bi loolu yëpp mooy sukkandiku mu defar lii loolu mooy tax kooku su ko jëlee utiliser ko njariñu yaatu waaye tekkiwul na ñeneen ñi dëkk mën nañ koo jëfandikoo mais du à cent pour cent ñu gis ci seen bopp loolu moo tax souvent problème examen yi ak psoriasis yi ci mag bi muy bët bi ak toppam cité yi examen ci gone yi loolu bokk na ci loo xam ne day jafe lool ngir faj moo tax ma ne la képp koo gis mu ñëw ci médecine traditionnelle ci wàllu der dem na fu ne ci médecine moderne boo gisee mu ñëw ci yow dafa jaaxle waaye bu amoon feneen du ñëw fii su ñëwee rek pexe ñàkk pexe la su boobaa nag yow si sa bopp yaa koy wan ne li fi mag ñi bàyyi dëgg la jox ko mu téye mooy tax bu demee mu gis ci njariñ bu gisee keneen kuy jàmbat ni ñu mel mu ne ko doxal foofu même bu gëmul woon lii mu ne ko demal parce que gis na doon moo tax saa su ne dañuy faratal di wax ne nit soo nekkee ci mbir di ko doxal teg ko ci yoon bu doxee moo yaatal yëpp moo tax ñu defal leen ay savon yoo xam ni ay savon exemple moom ngay seen noonu di dimbali nit ci xale boo xam ne der bi nii la mel ko day xasan muy metti lool bu guddi gi du nelaw suy wokkatu sax waajur yi si boppam dafay waaye dafay daf koy yërëm moo tax ñu indi saabu bi ngir mu sangee ko indi crème dermatose bi ngir mu diwoo su dee nag examen bi mat bi am fu mu toll mu doon kurébët ci moom su boobaa nag ñu jox ko ne ko saaboo yi del sang crème a ngi nii del diw tisane a ngi nii antifongique den naan guddi gi del uti huile antifongique xam ngeen ne gam bi miin ngeen ko muy gam biocitizen bi dix mille francs lay jaay askan miin nañ ko gam bi dix mille francs su dee tout tànk bi day laaj une consultation ñu jéem a xool poids bi âge bi mu may ñu ñu ne ko ah yow kat mën ngaa jël mais mag bi sax day laaj étape bi fu mu toll ah jege si ñu xool ndax ndoxu cité bi day doon ñetti phase day doon première phase boo xam ni day fës am fu mu yem deuxième phase bi day commencé tas nag ci yaram bi commencé feeñ ci loxo yi di ko xaw a sadd ñetteelu phase bi nag day tas ci yaram bi te bu tasee ci yaram bi mën naa laal rein yi naa laal leneen ak leneen kon loolee ñu bàyyi ci xel kon mbokk yi li bokkoon na ci li ñuy ñëwoon képp koo xam ne yaa ngi am jafe-jafe ndar muy examen Euh, su amee jot daagul nànk ñëw seet ñu ci cabinet bi Biorahma ñoo ngi tënkee sur la 18 pharmacie soo ko ñëwee am gone goo xam ni lii nga seen nii moom lay jàmbat ci kàttanu yàlla soo ko ñëwee ah di nga gis ne kat ah, ah, am na lu baax lu baax am na ci médecine traditionnelle jaa ngeen jëf téléphone bi 77 244 97 su dee ñu dëkk ci yeneen ñi dëkk nag am na ñu ay bërëb yoo xam ne ñoo ñu toogal foofu. su boobaa photo bi nga may envoyé ma def une consultation xool ban genre la wax la nañ la jox lii ak lii même bu dee nit ku nekk Europe ay doomam di dund li ni mel donc danga may envoyé photo bi ñu def consultation bi ñu retourné la wax la ne la lii la lii la feebar bi lii la lii la war a jël ak lii ak lii ñu suivre je pense que loolu bokk na ci li ñu wër ñu leen di jaajëfal bu wér ci ànd bi ak topp